dama bëgg ñu jukki ci loo xam ne bu ñu demee dañ koy mën a pratiquer ndax dafay doon yoo xam ne dañ koy gendeeku di ko xam ñu xam ko bu ñu fi jógee ñu xam xale bi ñuy jëflanteel kan la lii may wax lu tax mu am solo mooy ne dañoo euh, ñu xam ne loolu laal ci nit am na feneen fu muy jeexital ci misaal dong bi mokkalut alxuraan tey mokkalut bindam tey mën a ko mën a ko euh, doo añi doo añi boo mokkalut doo añi léegi man benn problème moo fi nekkoon mooy ñàkk a mokkal dolliwaat naa ci beneen mooy problème mu xiif day daal dikkaat <laughs> euh, léegi moom ñàkk a mokkalam googu xel mi mi ngi ci doon liggéey nan laay def ba génn ci nga ñëw dollil ko ci beneen ni ko doo añi boo mokkalul léegi xel mi bu waroon a liggéey 80 euh, pour cent maanaam téeméer bu ne 80 mu juróom-ñett fukk yokkaat nga ci xel mi beneen problème. bu boobaa duutu mën a amati 80 pour cent waaye ay 40 pour cent 30 pour cent mooy vitesse bi mu doon dox pour mokkal sax dafay gën a néew ndax léegi indil nga ko xibaar bu bees mooy ne ko doo añi boo mokkalut doo toog fee ngay taxaw léegi yow benn fi nekkoon yokk nga ñaar xel mi dafa jooyoon jëm ci jéem a mokkal génn ci problème bi nga indiwaat beneen problème su ko defee dafay gën a diis mooy ni kon euh, euh, pour ngeen génn ca du yomb hmm. te amoon na yeneen anam yoo xam ne boo ko defoon mu gën a mu gën a gaaw yooyu xëy na dinañ ci diggaat kon ngeen gis ne foo laal rek kii ndax mokkal mbiru xel la comme que yow jotiwoo ca xel ma moo tax yow nga nga nga jëm koo euh, euh, teg ay daan ni ko doo doo doo doo añee pour laal ki mais fa ngay laal ci wàllu xiif bi dafay jeex jeexitalaat ci xel mi su ko defee xel mi la mu waroon a jooyal coonaam bépp ci mokkal dafay gën a wàññeeku su ko defee nag nga am problème. moom mu am la euh, su kon nit euh, ay mbiram dafa dafa yombul moo tax incha allah euh, duñ fi indi ay théorie yu bari mais ci yu ñuy seetlu rek danañ ko indi pour ñu mën koo jariñoo bu ñu génnee xam-xam boobu nag di topp nit ki di ko topp pour xam ko ndax nit dafa lëndëm mais xam-xam bi koy topp mooy ilmu nafs bi ñuy wax moom nit rek ko tax a jóg nit ki fi mu fi mu ganee àdduna daanaka mën nañoo wax loolu fi mu génnee ci biiru ndeyam ba ni róogee rote foofu la koy toppee saa bu faatoo xam-xam bi moom day taxaw beneen xam-xam mooy dikk si bu boobaa bu faatoo euh, fiq mooy ñëw naka lañ koy julleek naka lañ koy jébbale boroomam ay yu mel noonu mais bii moom yoonam du nekk ci naka lañ koy jébbale boroomam mm-hmm. waaye li muy topp mooy nit ki yàlla bind naka la ko binde naka la nit di dunde ci kaw suuf naka lay faje ay aajo laxas yi ko soxla yi ko yàlla laxas nag mu ànd ak moom te kenn mënu ko tàqaleek moom te moom it mënut a tàqalekook moom soxla yooyu mooy tax nit ki fenn fu ci nekk muy jéem a adapté wu muy jéem a adapté wu barab boo ko teg mu jéem a dëppook barab la loolu la ñuy tudde takayuf sëñ Xaadim junj na ko sànq fii gis nga nit lu mu ne la lu mu ne la mënuma ko daa fekk teguñ ko ci condition yu tax mu man ko waaw waaye boo ko tegee ci tolluwaay yooyee da gis ne nit li man bari na lool waaye léeg-léeg tolluwaay yi mooy nekk gàllankoor ci moom wala ak xelam ak ay yu mel noonu fu mu ne koo ci nit mën na laa wax ne man de sama càmmoñ bu mënuma ci dara salaaw càmmoñ ma mënuma cee def dara balaa woon nga xam ne mën naa def dara ci càmmoñ bi mu am ngànt loxo ba docteur yi takk ko ba ba mu ne pipiit mënut léegi ñu bàyyi ko fa ay bis yu new laa la may nga gis ko muy def léppam aajoom yëpp ci càmmoñ la koy fajoo mooy mi ngi tay takayuf maanaam bu caaxaan faaxee dëgg des dafay daal di jéem a ànd ak ànd ak situation bi mooy koo dégg ma sama càmmoñ bi dama daal moom moo ko da tal rek waaye am na situation bu ñu koy teg lépp lu ndeyjoor bi doon def càmmoñ bi dana ko def hmm. kon noonu la nit bindoo moom ci tolluwaay moo tax ñu naan la nit melut nee na na mu mel mooy ni ko ni ko tolluwaay bi eh, eh, kii gaa tolluwaay bi mu nekk lim ko gaa noonu lay mel moo tax léeg-léeg ñu wax jox la xibaar ci nit ñi la def na nangam nga yéemu ci yàlla ah kooku de am naa ci moom nag am naa ci moom bett nag nangam nangam kii mën na fekk ta condition ya tax mu def ko da caa musta nekk léegi nag ñu tef def ko ci mu mel yor weneen melokaan kon jikkoy doomu aadama euh, day topp barab di topp jamono loolu it lu mat lu mat di xam la moo tax nañuy moytandiku du topp nit ba mu sës ndax bu sësee rek weneen melokaan génn ca ca ca yooyu lu ma tegi kon ilmu nafs dafay topp nit ba keroog ruugi ron euh, mu doon nag xam-xam bu am solo boo xamante ni ji jëfi doomu ay melokaanam ak yu mel noonu day topp jëf yooyu nag li li li li doomu aadama di def nag euh, daanaka mën nañ ko xaaj ñaari xaaj buñ mën a gis ak boo xam ne mënee su koo gis nit bu reeyee nga xam ne mi ngi ree bu jooyee nga xam ne mi ngi jooy bu lekkee nga xam ne mi ngi lekk bu naanee nga xam ne mi ngi naan bu nelawee nga xam ne mu ngi mboolem jëf yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xamante ni saa bu koy def diis koy mën a gis teg ci bët bu waxee nga xam ne mi ngi wax ak yu mel noonu yooyu euh, bu bu fes bi waaye nit mi ngi def yeneen yoo xam ne ci biir la mbir mi xewee yoo xam ne bët du ca tege waaye il faut que mu am ay màndarga yu koy yu koy firndeel ci biti nit day jaaxle nit day tiit nit day mer euh, nit day bëgg nit day bañ yooyu yëpp mbiru biir la man su ma toogee nii rek ni pat kenn du xam ndax damaa bëgg wala damaa bañ damaa mer wala dama tiit wala damaa jaaxle wala damaa nangam ndax yooyu mbiru biir la waaye yooyu bu ci am ca am ca ca am nga wér faw mu am lu koy firndeel ci biti ca loola ngay sukkandiku la koy firndeel ci biti daan ne kii de dafa mer wala kii de dafa bëgg wala kii de dafa tiit wala kii de dafa jaaxle waaye bu dee jëmmi jëf ja ca boppam jëmmi jaaxle ga ci boppam mënoo koo gis jëmmi bëgg ga mënoo koo gis jëmmi bañ ga mënoo koo gis waaye day am ay tegtal yuy nekk ci biti ci ngay sukkandiku daan ni dafa mer dafa bëgg dafa bañ dafa tiit dafa nàngam yooyu ci parti bu nëbbu bi la loolu nag yooyu ma tudd tiitaanga ak bëgg ak bañ ak yu mel noonu cër bañ ko sant ci biir mooy xol bi foofu lañ koy askanale mooy lépp lu aju ci wàllu yëg-yëg mën nañoo wax loolu daal ci gàttal pour mu gën a yomb beneen bi ci des ci yu nëbbu yi kon yu nëbbu yi ñaari xaaj la benn bi mooy boobu ma tudd bi ci des mooy loo xam ne ajuwut ci yëg-yëg waaye yeneen mbir la lu mel ne ki fàtte lu mel ne ki mokkal lu mel ni ki fàttaliku lu mel ni ki xalaat ak yu mel noonu yeneen yu du yooyu yooyu mbiri biir la waaye day am moom it lu koy tegtali ci bitti rek man su ma toogee nii doo xam ndax fa mokkal naa faatixa wala la su ma toogee nii nit mënut a xereñ ba xam ndax mokkal naa faatixa wala déet mu am lu koy firndeel ci bitti pour nga xam ko nag faaw ma ma tari nga xam ne man mii kat nekk kon fat mokkal naa ko ca tari gi moo ñu yóbbu ci beneen fàttaliku mooy loo mokkal ba noppi génne ko kon mooy ne dencoon nga ko fa sori génnewaat nga yooyu mbiru xel la yooyu mbiru xel la kon gis ngeen ni nit mën nañoo wax ne ñaari xaaj ci ay jëfam ñaari xaaj la bu fés buñ mën a gis ak bu fesul bu fesul bi ñaari xaaj la yoo xam ne ay yëg-yëg la yi mbiru xel la waaye bu mu ci man di doon faw mu am lu koy jëmmal ci biti ñu xam ne kii ci tolluwaay bii la toll loolu nag suñ ko xamee dañu xam ne nit bu defee dara xamal ne nit a ko def bu loxo defee dara loxo bi rek defu ko laataa loxo bi di def wàllam am na yeneen yu def seen wàll ci mbir mi ci comme misaal moom ma leen jox la looloo tax kon nañuy jàpp ni nit nit bloc la wax dala kenn du ko pàcc pàccal kenn du ko détaillé kenn du ko détaillé loolu nag lu am solo la lu mat a xam la ñu xam ni tamit nit mag mi ak gone gi la leen wuutale mooy expérience dund gi ak kàttanul yaram waaye yëg-yëg yëg-yëg yi ñoo ko bokkule aajo yi ñoo ko bokkule xiif mag ak gone ñoo ca yam liir bi juddu tey day xiif balaa jant soo mu xiif ci bu xiifee def luy wane ne xiif ne day jooy daal Euh, alerté ñi ko wër am na lu xew fi man mënagut a wax de waaye jooy la séq ak ñun bu jooyee mag ñi daal di gaaw ñëw jéem a xool mbaat dara da ko màtt wala dafa tàng wala nàngam wala dafa feebar biir bi metti wala dafa xiif ñun ñooy làmbatu en tout cas moom wàllam def na ko mooy xiif na jooy na hmm. c'est que defee ñu làmb ñu làmbatu dem xëpp ko ndox ñëw nàmpal ko bu nee pat nga xam ni affaire bi xiif la woon ak yu mel noonu yooyu kon nañ xam ne nit ba mu xasee ba nekk nit rek dañoo nuróo ci lu baari muy gone gi mag mi waaye mag nag dafa am expérience dund dafa am expérience dund jaar fu bare bari ci ay jaaruwaay yu wuute loolu dafay gën a nàmm xelam bu dee gone nag jaaruwaay yu bariwut amul expérience bu bare looloo tax ay ay jëfam ak melokaanam di wuuteeg mag mi waaye ay yëg-yëg ni mag bëggee ko ko wormaal bëgg ko ko jox cër bëgg ko ko bégloo kontaan nangam noonu la gone di def waaw am na yeneen yuñ wuute nag ci man ngay jàpp ci misaal loolu danañ ci ñëwaat léegi gone bu meree ak mag bu meree gaaw gaa bàyyi mer mi hmm. euh, dañ ciy wuute ci loolu danañ ci ñëwaat waaye nañ jàpp ni ko ndekete nit kenn du ko pàcc pàccal kenn du ko détaillé kenn du ko xaaj hmm. dangay am nit jàpp ko wala nga xam ni amoo nit nga bàyyi nga bàyyi nit hmm. kon gone yi nañ leen jàppe nit moo am solo dañ leen jàppee nit dañoo am ay yëg-yëg am lu ñuy bëgg am lu ñuy bañ am lu ñuy ragal am lu ñeme am na nangam yu mel noonu yooyu yëpp ñu xam ko ay borom yi yëg-yëg lañ hmm. cañ leen bañ a jàppe ay gore yoo xam ne jëmuñ fenn wala yeneen bindeef déedéet comme ñun lañ loolu bu ko xasee ba def dara am solo ilmu nafs nag kon comme que moo topp nit ki noonu mën nañoo wax ni mboolem doomu aadama yëpp koy soxla woo ndax nit a fi nekk nit a fi nekk nit kooku moom laa leen waxoon mooy sottal mooy jariñoo moo tax waajur yi dañ koy soxlawoo ndax faaw nga jëflanteeg nit te jëflante ba nag pour mu yomb jural la njariñ loo ko gën a xam loo gën a xam nit ki mu gën a yomb loo gën a xam nit ki gën koo mën a jariñoo ngir gën a mën a dimbalante waaye lu ngeen gën a réeroo jafe-jafe di gën di yomb fénqaloo di di yomb ndax réeroo bi mooy di seen xaadim doon tuddee ay communication wax faaw mu am ci jokkoo il faut que euh, gindeel konte il faut que mu am waaye bu kenn ku ne nee patt kenn ko ne day am lu muy firee bu ma egsi woon ni cell nii rek euh, dana am jëmmi noppi gi rek dana am lu ñu koy firee ñu wóo ñu wóote waaw waaw su ko defee yooyu yu yu yu kii la kon waajur yi dañ koy soxla war ndax dañuy jëflanteeg xale yi jàngalekat bi ci jàngalekat bi ci barab bi muy jàngale moo xam sa daara lañ koy tudde wala leneen lañ koy tudde da koy soxla woon ndax dafay jëflante ak ay nit moo xam gone yi la moo xam waajur yi la moo xam ñeneen la euh, jaaykat bi da koy aajowoo ndax dafay jëflante ak ay nit clients yi attekat bi da koy aajowoo ndax dafa am ñu ñuy teg ci kanamam mu war leen a atte ci war caa maandu dafay dafay aajowoo ilmu nafs kon daanaka mën nañoo wax ni képp kuy jëflante ak nit da ko soxla woon hmm. te loo ko gën a mën nag gën koo xam sox euh, jëflante ba gën a yomb mu doon xam-xam boo xam ne nag euh, dafa am solo lool solo si mën nañ koo fekk ci ñetti mbir mooy ne dalay jàppandal mooy lu xew lu nekk nga mën a xam xew-xew bi mën a xam li ko waral mën koo dégg nga mën bu defee dara nga mën a xam jëf ji mooy lan ginnaaw bi ko gisee nga jëm a xam ko waral ci misaal nit ki bu dee jëflante yow bu ree da nga xam ni ree nga waaye waroo yem ci xam ni ree na waaye dangaa war a jéem a xam ree yi lu ko waral mooy ni bëgg na ci li nga ko wax wala ci jëflante bi ngeen di jëflante wala nangam wala bëgg naa dalal sa xel ci nga rafet njort ci moom nit ki bu meree waroo yem ci xam ni mer na waaye danga war a jéem a xam lu tax mu mer nit ki bu tiitee war ngaa waroo yem ci xam ni tiit na waaye dangaa war a weesu foofu war a jéem a xam lu ko tiit loo lan la jëf jëflante kon loolu la ñu xam-xam bi di njëkk a may mooy jëf ju xew ju nekk ginnaaw bi nga xamee xew-xew bi nga jéem a xam lu ko waral sabab bi muy bu njëkk bi tafsir tafsirul mushkilaat bi ci des mooy euh, dalay may ci ci xam gooy xam nit ki nga mën a gàttandu mën a séentu li mu war a mën a def ak li mu warut mën a def seen donga yi ngeen di jàngal ci xam gi ngay xam don xale yi seen neexu xel ak naqare xel gi ci ngay xaw a mën a nattale ni diw sàngam mi feeg ñaari at wala feeg ñetti at rafet naa njort ni dana mokkal day am ci daara ji hmm. diw sàngam mi nii muy doxee mel na ne daal xel mi maa ngi ñaaw njort ni bu dee mokkalit dana jël waxtu loolu dafay faral di am loolu bu ngeen ko dee def mooy ne dangeen a am yu ngeen cëslaay yu ngeen sukkandiku pour mën a wax loolu waaye loolu la ñuy tuddee tanabbu mooy mën a séentu lu ñëwagul loolooy tax nag ci biir xam gi ngay xam nit léeg-léeg ñu jox la xibaar ci moom nga ne xanaa teg ci bët mooy tax ma gëm ko ndax danga danga am yooyu sukkandiku ba jàpp ni wóorut mën a def loolu ñu wax wala ñu wax la xibaar ci nit nga ne ah ma woon bu ko dellu toon ma rus mooy am na ay ay tegtal yoo am ba jàpp ba doon séentu ni lii dana ko dal hmm. bu ko dalee rek nga ne bettu loolu loolu xam-xam bi dala koy may mooy xudra xudra ala tanabbu mën a sént lu ko mooy lu sént lu ñëw ko kon donga bi boo rafetee njort ci ni muy doxee ak xel mi ni muy kiyee nga ne bu continuer ci ci ci tolluwaay yi amul benn ndog feeg ñaari at dana mokkal xam gi dafa am solo ndax dafay tax nga gën a saytu xale bi ndax rafet njort gi te loolu mooy nag bu fekkee ne dara leneen jaaru fi lu ko gàllankoor ndax nit moom dafa vulnérable maanaam dafa bari ay gàllankoor waaye bu fekkee ne yàlla musal na ko ba amul benn gàllankoor nga ne kii bu amul gàllankoor feeg nangam diir sàngam dana mokkal su ko defee day tax nga saytu kii nga ne kii day ak mokkalam dana ma jaaxal dana jafe lool feeg nangam yu mel noonu loolu dafay tax nga gën a xoolaat ci ban anam nga koy saytoo nga jéem a xam tamit lu tax waaw ndax carrément dafa naqare xel wala anamu jàngalin wi moo méngoowut ak moom ci waxtaan wi weesu junj na leen neen ak jur wenn yat lañ koy sàmme waaye bu dee nit kenn ku nekk na ngay jëflanteeg moom xale yi tamit il faut que ñu ñu jëflanteeg ñoom ci anam boo xam ne day mel ne taal bu tëë tàkk taal booy boyal mu tëë booy nu nga koy uppee ndànk-ndànk waaye la ci ëpp solo euh, mooy euh, euh, lii ma leen wax mooy kon ñaareelu mbir mi mooy day mën a tax nga séntu lu ñëw ñëw ñëwagut jéem koo gàttal ñetteelu mbir mi nga xam ne an mu nafsi daf ñu koy jàppandara mooy ñuy saytu tolluwaayu nit ki ñuy mën a saytu nit ki nit ki ku la ko gën a xam gën la ko mën a jariñoo da ngeen di gis léeg-léeg ñu naan yii sàngam de moom ah xanaa ngeen def bëgg koo bëgg ko bëgg koo defloo dara mu xaw a të ngeen ñu ñu ne nañ dem ci diw sàngam nañ dem ci diw sàngam romb fi ñëpp ne nañ dem ci diw sàngam nga xam daanaka dañuy dem boole ko diw sàngam rek su ko defee diw sàngam boobu bu ci dugalee kàddoom rek ngeen di gis ne affaire bi dafay daadi di sotti loolu mooy am na lu ko booleeg diw sàngam moomu ca boole bu kook ñi ci des am na lu dox seen diggante ci kii diw sàngam moomu amaanaw da koo gën a comprendre nit ñi ba tax na xam na fu mu koy jaar xam na ni muy waxeek moom xam na ni nit kii bëggut kuy waxeek moom ci nii bëggut ku koy defee nii bëggut ku koy defe naa ci loolu nit ñi mën nañ ko bañ a comprendre moom nag mu teel ko comprendre boo xamee ni nit ki ku bëgg daraja la boo ko bëggee def loo danga nga koy jaaraloon rek jaarale ko rek xamal ko ni ko am ko am daraja la nangam nangam kii ko pompe ko rek boo ko pompee tuuti rek mu defal la léegi boo xamee bëgg alal la boo jaaree ci alal boo eggee ci njëg gi rek mu def ko xam nga am na njiitu réew mu doon wax ne nit ku ne am na njëg waaw nit ku ne am na njëg loolu lu am solo la waxi mag la waaye mooy ne nit ku nekk daal mënees na koo def loo mënees na koo bàyyiloo mhm. des na rek ci nga xam ci ban anam nga koy jaaral waaye ku mën a tëj ñëpp amut waaw ku tëj ñëpp amut ndax nit bu beru ay aajoom di faju moom kese kon ñett yi yu am solo la yoo xamante ni xam bi moo ñu koy may bu dara xewee nga xam ko ci jéem a xam lu ko waral mën a séentu lu ñëwagul ba noppi mën a saytu eh, doxelinu nit ak ak tolluwaayam mooy dapt sulu ñetteelu problème mu daara yi mooy léeg-léeg dañ dul xam fi jamono toll waaw nit dafay nekk doomu jamono nit day nekk doomu jamono waaye bu fekkee ne dangaa bëgg ni sama maam ak sama maamaat lañ doon def ak nañ ko doon defee noonu la fas yéene def ak nañ ko doon defee ndax nga am jafe-jafe ndax doo sa maam sa jamono du sa jamonoy maam yooyu bu bu buñ ko bennee bu buñ ko bëggee benn rek am nañ jafe-jafe mën ngaa ànd ak sa maam nag ci principe yi ni nit ku baax la woon daawul wax lu du dëgg fas na ma yére sama dund du ma wax lu du dëgg loolu moom ay principe la mais defiin ak nangamiin moom boo ci bëggee roy sa maam ci lépp wala sa baay ci lépp nar ngaa xalsat ngaa yóbbee sa bopp jafe-jafe waaw ndax bokku jamono ca bokku leen yéen ñaar loolu it nañ ko bàyyi waale xel moo tax bu ngeen dee jàngale da ngeen di jàngale bàyyi waale xel seen jamono seen jamono nag il faut que ngeen comprendre ko fi jamono ji tool xaadim mi doon wax léegi junju na ni réew yi sax moomatuñ seen bopp ndax dañoo lënkaloo di signé ay accord maanaam signé xaatim dëppoo ci ne danañ maasa def nangam ñu réew mu nekk bu ko signé ba noppi dañ naan la dellul sa dëkk boo demee nga jëm koo jëmmal mooy tax daanaka dañuy weñ seen loxo ci ci biir yooyu ñuy xaatim ku la ci gën a néew doole gën laa ñàkk sañ-sañu def leneen ndax amuñ doole yooyu nag dañ ko war a xam bu baax a baax am na yoo xam ne réew mi du ko nangu réew mii ñu toll duutu ko nangoote réew ma woon ci anam ci juróom benn ci ginnaaw wala juróom-ñaar fukkaat ci ginnaaw mu doon ko nangu réew mii moom duutu ko nangu hmm. loolu nag yow mi nekk ci jamono ji boo ko bëggee Euh, boo bëggee delloo réew mi ci juróom-ñaar fukki at ci ginnaaw di def jëfi juróom-ñaar danañ la danañ la teg loo xam ne daawuñ ko teg nituk juróom-ñaar fukki at yi ci ginnaaw loolu say boog ñu teel ko bàyyi xel loolu nag du sëñ daara yi kese mais ñun ñëpp la mooy jotaay yi il faut que ñu defaraat toogaay yi mm-hmm. réew mi moo toll foofu moo tax dara day xew ngeen naan euh, ñii dañoo bon kilifa diine ñaan lañ leen njëkk nit ñi naan lañ leen njëkk lànk yi mel noonu da cee am yoo xamante ni daf leen di ëpp doole moo tax loolu ay nit ki sa dund waroo sukkandiku ci ñaan njekk danga war a jéem a tege ci yoon ba kenn du la ñaanal njekk loolu mooy wax ji ñu jéem a tege ci yoon ba duñu aajowoo ku ñuy ñaanal njekk buñ ci tege woo rek tege nañ ci yooyu nag ñetti problème yi moom yu yu dafa topp euh, rawatina daara da ko topp moom ñàkk formation moom moo moom dafa doy moo tax lii ngeen di def ñu koy rafetlu bu baax a baax maanaam bu ñu leen tàggatul tamit yéen ngeen jéema a tàggat seen bopp mm-hmm. lu ama am solo la ca bu ci wóoyee ay at da ngeen gis ne yu bari yi ñuy askanale daara ak jafe-jafe yi muy am dafay gën di wàññeeku mm-hmm. kenn du wax ne nag jafe-jafe dana dund ci dana jafe jóge ci dund gi déedéet métier bi yëpp day am ay jafe-jafe métier yëpp day am ay accident ñu cay am waaye bu boobaa accident lañ koy tuddee bokkut ak na loo xam da nga koo jàppee comme ab règle maanaam qaida déedéet bokkul ki mën a dawal te respecté code de la route bu accidenté dañoo xam ne accidenté la ndax ndogale ñëw waaye koo xam ne euh, euh, respecté wu ci dara maanaam minute bu mu dund bénéfice la ci moom waaw noonu la mel ci wàllu liggéey yi tamit koo xamante ni tërëliin yi xamoo ci dara jéemoo ca sàmmonteeg dara dañuy jàpp ni bénéfice nga jàmm joo dund bénéfice la jàmm joo dund rek bénéfice la kon yooyu nañ koy bàyyi wala xel njàng nag dafa am ay charte njàng dafa am ay charte charte yi xëy na mën naa bari mais dinaa ci tudd ñett rek bi ci njëkk mooy comme euh, mooy nit ki bala nga koo defloo dara na fekk cër yi mën koo def ba noppi cër yi loolu lañuy ñuy tuddee ñor ñoruk cër yi pour def dara cër bu nekk ak la la tax yàlla sàkk ko il faut que mu egg ci man-manu man koo def bu fekkee ne loxo bi dafa war a yëkkati lu diis biteel bii na fekk mu ñor ñor mën koo yëkkati liiru liir buy door a judd tey mënut a yëkkati lii parce que loxo loxo bi eggagut fu mën a yëkkatee lii euh, noonu lañ koy waxe ci anam yu bare moo tax liir bi du mën a taxaw du mën a toog ndax cër yi ñoroguñ eggaguñ fuñ mën a defee seen liggéey cër yu bari loolu nag xam ngi dafa am solo xam ngi mooy lan mooy ne bu boobaa ku leen jox donga boo xamante ni ay dongam ñetti at ak ñeenti at bu ngeen ko jëlee yéen indil seen bopp problème waaw bëggi donga bu mu leen tax a jël ku egg gut ci wax waxtu jàng parce que bu ngeen ko jëlee da ngeen di sonal seen bopp te ci ni yàlla binde doomu aadama cër bi feek eggut ci man-manu def liggéeyam du ko mën a def ca bu boobaa dañ lay wàññiwaale at yam fay def dañ koy wàññiwaale ci dogal bu la fa dal kenn du la jéggal te dañuy xam ne lii jàngale taxut nga jël ko waaye wutab xaalis moo tax nga jël moo tax ku la jox ay ñeenti at bàyyil ma ko ci daara ji rek nangam waajur yi dañ koy faral di def ku ko ci jël lu la fi dal yaa ko teg sa bopp ndax buñ ne dongam ñeenti at la dañu xam ne yow mi jàngale taxut nga kii parce que gone ak ñeenti at ci suñ daara yi nii muy doxee amoo jumtukaay mën koo jàngal kooku feneen la mën a jànge ay préscolaire ak ay jumtukaay yeneen mais yow ay saa di ko wax ni ci xale bu toll noonu moo ne yow fasoo ko yenee kon loolu xam nga da ciy baax nit ki bala nga koo defloo dara na egg ci fu mu ko mën a defe moo tax ñuy jël xale yi juróom benn at ak genn walla jàpp juróom ñaar parce que cër yi ndax njàng mi du mbiru xel mi rek waaye cër yi dañ cee amu yoon xale bi war nay toog war nay bank tànk yi war nay mën a yorub jukki war nay mën a bët yi nangam yépp yi ci ma ci ci aju yépp dafa bari loolu nag bala nga koo jël na mel noonu ba noppi ba lépp mel noonu waaye bis boo ko boo ko jëlee lépp mel noonu na nga fexe ba buy génnaat daara ji bu ca dara sikk xale bi bu dee ñëw ànd ak bët yu neex ànd ak nopp yu neex ànd ak cër yu yu wér peleg amul benn laago na nga góorlu ba ni mu fi duggee nga sàmmee ko buy génn mun a wér peleg loolu mooy njàmbarte gi waaye mu ñëw nga sàggane ko mu wànnentu nga di ko sàggane bàyyi ko ñaari fan ñett wànnentu gëmm nga jàpp ni wér na mu commencé waat di jàng wala mun la sama bopp day metti nga ne ko da tappale wala sama biir day metti nga ne ko da tappale ci mbir mi nekk mbir yu yëg-yëg xamoo ci dara loolu boo ko dee def su la fa dal yaa ko teg xale bi kon xale bi bu dugg see wér peleg na nga góorgóorlu ba buy génne buy yóbbaale alxuraan tamit cër yi moom na wéraat peleg loolu mooy jàmbarte gi waaye léeg-léeg nag ak càggante da ciy am ci yooyu it lu mat di bàyyiwaale xel la bëgg mokkalal baax na mokkal alxuraan baax na mais nag wér-gi-yaram sàmm wér-gi-yaram da ko gën a nekk farata ndax bala ngeen ne naam da fiy nekk kon xale bi ne na sama biir day metti tey bëgg gaaw a mokkal nga ne ko da ngay tappale demal jàngi ca fekk biiram day metti amaana nga boo ko bàyyi woon 30 minutes jox ko garab mu tane bu ñëwaatee ci lay gën a nekkaat en forme la la la ko la meloon da ko raw fële dana ko dabaat moo gën nga nañ ko dangay tappale gis ngeen suñu école yi da ngay tappale amu ci baatu tappale suñ daara yi rek la am loolu nag dañ naan lu lu lu lu amut lu nekk du am tur waaye nag lu tax mu am ci suñ daara yi rek ca amut ci suñu école yi lu tax suñu école yi doo dégg ñu naan élève bi da ngay tappale ca ci daara yi rek la ñuy tapp la ñuy wax dangay ngay tappale jógul fi waaye da tappale rek waaw man loolu ni mu ma jaaxale loolu il faut que ma kii ko baatu tappale ci boppam lañu war a génne ci suñu daara yi ndax ah waaw yéen ñuy wax tappale yéenay xam tappale tappale xam nga yéen tricher mooy tricher ci tubaab bi mooy ne dangay woote wolu amul waaw mooy tappale dangay woote wolu amul gis nga yow fu mu ne xale bi boo ne dangay tappale eh, doo yem ci wax wax wax lu la leerul de waaye xale bi sax mën na cee amee firnde ni yow ku ñeme yàlla nga da ci ame firnde ni yow ku ñeme yàlla nga waaw ndax moom da koo leer ni biiram mi ngi metti yow mi nga xam ne amoo yëg-yëg bi te yëg-yëg bi mënu koo tuxal indi ko ci yow ba noppi nga jël risque ni ko da ngay tàppale dara jotu la moom da koy biir ni loxo baaraami loxo mi ni yow mi ku ñeme yàlla lu garaaw la loolu nag boo ko dee def di ko defante day xam ne kii euh, du nitu waaw kay moo tax yooyu dañ ci dañ ciy moytandiku lu mel noonu nit day wax lu ko leer nit day wax lu ko leer te kii ñëw ñu ne tey dama kii nga ne ko da ngay tappale bu ëllëgee mbir dana ko dal du la ko wax mbir dana ko dal du la ko wax kon benn mooy ni kon bala ñoo jël dongo nañ xam li koy li koy li li na xam ne mën naa def liggéeyam ñaareel bi mooy ne bëgg-bëgg bi na fa nekk bëgg-bëgg bi na bëgg daara bi bëgg daara nag dañ koy sooke bëgg jàng dañ koy sooke même boo ñaawee jort ni kii dafa bañ jàng da jéem a def ay pexe def ci moom ak bëgg jàng loolu nag am na ay pexe yu baree bari ci ñeme loo ko sa bopp ci xemmeem loo ko li li muy def mu jéem koo xam loo njariñal alxuraan ji muy jàng jeex di ko def ay neexal léeg-léeg di ko def nangam ak yu mel noonu di def ay pexe ba jur ci moom bëgg njàngam boo ñaawee jot ni bëggu muy daafee loolu lu am solo la bi ci des mooy ci wàllu njàng sarti njàng yi mooy il faut que jëf am am na yoo xam ne kenn mënu koo jàng mënu koo xam jëfe ko ci seetaan rek kenn du seetaan picc jën yuy fay ba tax nga mën a fay ci ndox faw nga jéemal nga jéem a feeñ di def muy mooy def naa ko ba keroog ak kenn munta seetaan dawal oto nii rek su mosoo téye kii xëy xëy rek man ko loo nekk ci professional déedéet faw nga nab nabe ci bonam mooy loo doonul loo doonul dongaam loo doon ab sëriñ kon eh, yooyu tamit lu ci lu ci lu ci am solo la kon ñett yooyu il faut mu am mooy ne egg fu mu ko mën a defee na ko bëgg ca na ko nangoo def na ko nangoo def xale bi man jàng nag nga ànd ak moom ci vitesse bi muy jàng daanaka yow defoo dara moom moo def lépp jàngalekat xeranteefam mi ngi feeñ ci ku ku ñuy sikk sàkk ni ki jàngal ko yomb mu fexe ba jàngal ca méttitalu ko ca méttital amu ci kooku mooy ku man loolu nag ay ay ay génn kon li fi li ma fi bëgg a wax mooy ni ndekete xale bi faaw ngay sàmmoonteeg ay yëg-yëgam faaw ngay sàmmoonteeg ay yëg-yëgam bàyyi ko xel yëg-yëg yooyu nag ci lay ñëw tuuti te mooy euh, li ñu tudde ak màgg rek ak numuwul infiaali yi mooy euh, ay yëg-yëgam ni muy soppeekoo yooyu euh, li ma ciy tudd ndax ñu ngi may wax ne fukki minute ak juróom moo ci des li ma ciy wax mooy ni gone dafa wuuteeg mag ci yëg-yëg yi nuñ koy nuñ koy fësale nuñ koy fësale yëg-yëg yi moom ñoo ko bokkale ñëppay mer ñëppay tiit ñëppay jaaxle ñëppay xiif ñëppay nàngam yu mel noonu waaye nag feeñal gi mooy wuute waaw mag bu xiifee danaan xiif naa dem saafara ji ko bu dee gone day jooy kon pexe lañ wuute mooy expérience bi mu leen doon wax mooy dellusiwaat fii su ko defee nag xale yi yi gën a fës ci seeni i yëg-yëg mooy ragal jaaxle ak bëgg ñett yooyu moo gën a fës ci seeni i yëg-yëg waxuma ay xiif ak mar yooyu yooyu moom yeneen la waaye jaaxle xale da koy def tiit xale da koy def mer xale da koy def bëgg xale da koy def yooyu nag il faut que ñu sàmm ko waaye defin wi mook mag dañuy wuute xale xam nga. xale bu ndaw ay benn at ñaar man naa mer xalanku di xaru jooy bay taataar nooy gi tag nga foog ko naxantal mu kontaan ree ca saase ñaari xale mën nañuy fo xeex kenn ki gaañ kenn ki balaa ñetti minutes ci ginnaaw nga gisaat leen ñu àndaat di fo loolu lu koy waral mooy xale amut liy jàpp maanaam moom mbir day xew da koy def rek bu ci defee bu ko weesoo weesu ko bu dee mag nag bu ko defee ba noppi xel mi da ciy liggéey am lu mu ca jàpp pour nga fexe ba xel mi bàyyi ko loolu mooy jafe-jafe mooy tax mag ñi dañuy noonoo ca xale yi duñ noonoo mag noonoo bi mooy xel mi moo ciy dugg xel mi bu ci liggéeyee dafa may jox résultat ni ma diw sàngam mi dalaa yàpp li tax mu lay def li dalaa yàpp te bu ma xel mi joxee information boobu xol bi da ciy liggéeyaat fudduwaat wax na dëgg de daf maa yàpp laa yaakaar xaar rek ak yu mel noonu commencé jalaat beneen taxawaay moo tax mag ñi loolooy tax bàyyi bàyyi mer bàyyi noonu jafe leen ndax xel mi da ciy wàll yant ca bu dee gone nag moom seen yëg-yëg la ñuy doxee lu ñu weesu weesu ko moo tax euh, euh, soppeeku yëg-yëgu xale dafay jege day mer léegi kontaan léegi kontaan léegi mer léegi jooy léegi ree léegi ak yu mel noonu loolu nag du yëfi mag moom moo tax mag moo gis mu di ko def xamal dafa yembade mooy xel mi defut liggéeyam mer léegi baykat kat yi jékki-jékki rek xàqataayaat ca saase mag mu ko def ci sa kanam looy da da jaaxal waaw te bu dee gone du la jaaxal mooy ni kon loolu ci ay wuute la léegi nag bu boobaa nañ xam ne comme que xale day tiit di ragal di mer di nangam euh, nañ xam ne dafa aajowoo kon fi muy dund mu yëg ni jàmm am na fi loolu na ko nangu yëg nga yëg ni daara ji ak kër gi jàmm am na fi xale bi jàng si fu mu nekk nii ci ci jàng ñibbi yi xale boo xam ne bi muy jàng si dafa bàyyi ay waajuram di xuloo wala kër ga xuloo bu takk nangam nangam mu bàyyi ko fa ñëw jàng si bu ñëwee du jàng ndax la bàyyi ci kër gi moo jur ci moom ay yëg-yëg waaw kay day joué ci xel moo tax yéen seen xale yi jàng di ñibbi léeg-léeg xale ñëwee anam boo xamante ni la koy waral du ci daara di waaye ca kër ga ca ca ca xamu leen la fa xew ca léeg-léeg pour mu wax la ko day xaw a jafe léeg-léeg sax yéen du ngeen seq xale yi wax da ci bari ñoo xam duñ seq xale yi wax waaw mooy war a léegi xale bi bu xase ba def ci xelam ni sequ leen wax daanaka boo ko laajee du la wax ndax sequ leen ko moo tax instauré climat boo xam ne xale bi day yëg ni yow mii bëgg nga ko mu mu am njortu lu rafet ci yow am confiance ci yow mooy tax bu amee secret wala bu nànkee mu wax la ko bu ko dara metti le mu ne la ko am na ci xale yoo xam ne lu leen doon metti ci àdduna duñ la ko wax dañ naan la sax rek nga fekk fi ni waaye saa mais jël initiative ñëw fekk la fa nga toog nii la sama biir day metti wala sama bopp day metti la ko def xam nga loolu dafa garaaw yow ay bu bu ko dara metti du du du nangoo ñëw wax si la yow kay yowee dem ba fekk ko mu tëdd ca barab loolu jàngalekat bu bu koy def ci daara war naa seetaat boppam su ko defee yooyu yëg-yëg yooyu ñu koy bàyyi wala xel léegi nag yooyu pour soppi bi euh, yooyu yëg-yëg nag bu ñu ko bàyyiwut xel ci soppi gi te danañ wax li koy soppi euh, mooy ni dafay am ay jafe-jafe kon yu muy mën a jur jafe-jafe yooyu danaa ci tudd ñaar rek mooy ni dafay yóbbe xale bi wax lu du dëgg wax lu du dëgg ndax xale bi li feeg mi ngi ragal di tiit gisut boppam ci daara ji dafay dafay daal di def ci xelam fu mu toll dafay nos ay pexe pour génn ci situation bi xam nga waxoon naa leen ni leen nit ki situation boo ko teg rek daf ci jéem a génn bu dee lu jafe dana jéem a adapté wu jéem génn ak yu ne xale yi tamit dañuy dund loolu moo tax léeg-léeg ci seen daara yi ngeen gis xale yoo xam ne duñ wax dëgg dañuy bari duñu wax dañ leen dugal ci ay erreur ay njuumte euh, dañ lay gasal ay kaaw yooyu ndax xam ngeen ni wax lu dul dëgg kenn ku judduwaale wax wax lu dul dëgg jikko la ci yi nga xam ne kenn ku judduwaale mais dañ koy fàtku ci biir askan mooy ci milieu bi ñuy dundee fi la ñuy jëlee ñàkk wax dëgg melokaanu ñàkk wax dëgg xale bi ñàkk wax dëgg nag dafa am lu mu mooy riche bi mu doon wax triche mooy wanewu lu dul dëgg sàcc war yooyu yëpp dafa lënkaloog wax lu dul dëgg moo tax wax lu du dëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko laajee ndax jullit dana def nangam dana def nangam mu a la waaw ci ay yenn ñaawteef yi waaye bi ñu egsee ci ndax dan jullit dana wax lu du dëgg def ne jullit du wax lu du dëgg ndax dafa garaaw garaaw boo xamante ni bu xasee ba am mooy confiance moom dafay daal di jeex ca confiance ñàkk wóolu bu jeexee ci suñu diggante mooy dara desatu fi kenn ku ne day daal di jël matuwaayam baraake wu daal di jël matuwaayam daal di waajal sa bopp xam ne kii wax kat dëgg te ku dul wax dëgg lu ci ëpp warkat lay doon bu jekkoo alali jàmbur mën na koo jël mën naa wane lu moom daal li ciy aju dafay bari bari waay wax moo tax xale bu bu teelee bu ngeen gisee ci ñoom màndargo yooyu jéem leen a xam lu ko waral yi koy waral nag borom xam-xam yi dañu mën naa nekk euh, ñaar ba ñetti mbir wax lu du dëgg te ragal moo koy waral nekk ci situation tiitaanga ragal bëgg caa génn bëgg caa génn mm-hmm. nga daal di jéem a wut ay pexe wut ay lay loolu sax dem nañ ba def ko ci ay pour pourcentage dañ nañ ñu bari boo jëloon ab téeméeri juróom-ñaar fukk ci ñi wax lu dul dëgg ci gone yi ñu ci ëpp ragal tiitaanga moo koy waral moo tax bu ngeen bëggee xale yi di wax dëgg jub la ca jiitu na jàmm am ci biir daara ji mm-hmm. kaaraange kóolte ñeme la ca bañ laa yab yooyu bu xasee ba am duutu aaje woo wax lu du dëgg ndax wax lu du dëgg xeetu lay la ak pexe pour génn ci jafe-jafe la ñaareel bi wax lu du dëgg léeg-léeg mbir dana ko waral mooy woote woo euh, bëgg ku ko naw woote woo lum lu mu nekkul sama baay jëndal na ma jëndal na ma ay dàll yu bees ma ngi ca kër ga fekk aramse ko ak ak nangam ak nangam saa baay am na nangam sama yaay am na nangam te fekk li muy wax dara du ci dëgg waaye day bëgg ay moroomam naaw yooyu am na mag ñoo xam ne sax loolu te na wàll woote woo loo xam ne du dëgg ci ñoom dana ko waral leneen bi ci des mooy noonoo bu dee gone daanaka du si ko tuddee noonoo mais ñoom li ñu koy tuddee mooy xale bu def dara ba noppi xam ne xam ne boo wutu am na lu ko ca nar a fekk mu bëgg a tayle moroom ja jaay ko nga laaj ko ku def lii mu tudd tur keneen te fekk kooka defu ko mooy euh, mooy alkasib li daal fi am duwaan loolu it bu ngeen defut ndànk de xale dana sërxal moroomam nga ñu tuumaal ko lu mu defut nga teg ko daan xale boobu mën a waat digganteem ak yàlla ni defu ko waaye du tee teg nga ci aw daan dalay jàppal ak ñàkk maandu ba alaax ba ba ba faaw day euh, mënutoo def dara ba mu jàpp ni yow ku maanu nga ndax da koo leer ne lii defu ko ca ba teg nga ko ci ay daan te danga nga koo sukkandiku ci waxi koo xam da koo sërxal moo tax xale yi xibaar yi ngeen di amee ci xale yi dee leen ci liggéeyaat bala ngeen a jël ay dogal waaw deel bala ngeen ci li jël ay dogal dee leen ci liggéeyaat mais benn xale ñëw rek nga ñëw ni waaw ku def lii xam nga xale yi dañuy jaayante ci seen biir léeg-léeg ñu complot la kenn du wax waaw maase complot la nga jéem a def say pexe nangam nangam te dugg ki génn euh, ba ba ba xaw ca am information bu mais dafay laaj tey dafay laaj tey daare moom li fi xew yenn yenn ñu ko gën a xam ku yoole moroom ji boo génnee boo tudd dootoo ko defete su ko defee yu mel noonu moo tax xibaar bi in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu loolu dafay am ci xale yi loolu nag du ci daara yi rek ba ci biir kër yi xale man naa tojub kaas yaay ne ku toj yaayam ne ko ku toj kaas bi mun ne ko diw sàngam bu teeyul rek da koy pes ci kaw ni moo ko toj te fekk du moom yooyu nag boo ko defee defate ko xale bi lam lay jàppal kenn mënu koo dindi ci boppam ndax danaan def naan kii mànduwul te bu xase ba def ci xale bu mànduwoo euh, dafay daal di indi ay jafe-jafe beneen jafe-jafe daara ji mooy euh, balaa may indi kii bi mooy njàng mu doxade njàng mu doxali mooy amul bëgg-bëgg jàng jàpp nga ne daal kii bëggum jàng bëgg-bëgg waxoon naa leen mbiru biir la day am lu koy màndargaal ci biti bokk na ci yi màndargaal ni kii bëggul jàng jubuwut njàng mi mooy ni bari lu muy wut aw lay porte malade damaa feebar wala damaa nangam wala di ak yu mel noonu ci la ci la tappale yi ñuy wax di am parce que dafay am nu muy ñëwee ba jur ci yow ñaaw njort ne xale bi waxut dëgg Euh, bari lu muy porté porté ay malade ay nangam ak ay yu mel noonu ñu ñu kii yooyu wut ay ngànt ñàkk a jàng xale yi koy wut mu bari lool ca jege mën ngaa tàmbalee ñaaw njort ni kii bëggu njàng wala njàng mi ni mu war a doxe doxewul loo jàpp ni méngoo naa ak moom ci mu mokkal ko ku ko mën a mokkal nga wàññi kii ngay ngay jëyoonte def nang nang mais loo ci def rek gis ni du joxe résultat euh, kooku mën ngaa jàpp ni dafa defut xelam ci njàngam bëgg ko mën nga cee ñaam lool euh, yu mel noonu xale buy daw xale buy daw jékki-jékki rek fàq daw loolu it daanaka ci suñu daaree rek lañ koy dégg daanaka amul bis boo gis ci ci réseaux sociaux yi ñu naan la gone gi dafa daw daw jàng daw jàng ca daw gi li ci yées mooy bu fàqee daara ji du dem këram xam nga bu dee école ba sax moom xale bi léeg-léeg mën naa war a xëy jàngi tag ci yoon wi di fo di fo ba wàcc jot waaye day delluwaat këram moom mm-hmm. mais ñun suñu li ci doy waat mooy ku ci fàqe du dem fa mu dëkk loolu mooy li doy waar foofu mm-hmm. mooy feneen lay daal dem loolu moo nag loolu nag te bu demee feneen xamoo lu mu fay fekk ak lu mu fay jële ca boo waree ba indi ko it xamoo diirub lim daw lan moo ko fa toppee ci ay jikko bu ñëwee ci daara ji lu mu fi indiwaat ci jàngoro bu doon micro micro jàngoro dañ naan bu génnee jàngoro ci bootu dana dugg ci ci ci daara ji yooyu ay màndarga la léegi nag loolu dangaa war a xam sabab bi xam ngi rek lu doy xam ni def na nangam doyul xale bi daw na doyul xale bi daw na lu ko tax a daw mooy wax ji lu ko tax a daw loolu mooy laaj bi ñun nag dañ ko dut ñeme léeg-léeg duñ laaj laaj lu ko tax a daw il faut que mu xalaat ci ci ñeme ko ndax li ko tax a daw ci man la ndax ci ni may jàngalee la wala ci ni may jëflanteeg moom la wala ci daara ji la wala sax nag moom rek moo bañ jàng mi waaye wax dëgg yàlla ñu ngi lu àq ci yoreen bi yooyu yëpp il faut que ñu ñu ñu bàyyiwaale kon mën naa nekk ci moom mën naa nekk ci kii. comme ci wàllu wér-gi-yaramam gis bi mën naa naqari dégg bi mën naa naqari ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni mën na cee mën na cee nekk daf mel ni ñu may junj ni eh, waxtu wi jeex na léegi yooyu daal bu amee yoon bi gën a gaaw ci pour jéem saafara yenn jafe-jafe yooyu te ñaari yooyu rek laa ci tudd mooy ni nañuy fexe ba kaaraange am ci daara ji moo ci jiitu ci loolu mooy jur xel mu dal nit fu xelam dalul du fa nangoo nekk fu xelam dalul du fa nekk kon li jiitu ci liggéey bi mooy dalal xelu xale yi na seen xel dal nit bu xelam mën naa dal waaye fi mu nekk sax mu fiy xiif dafa daj ay coono waaye na comme que bëgg na liggéey bi bëgg na njàng mi coono bu mu fekkee da koy attan waaye xel mi na dal ba noppi ndax jàng mbiru xel la du mbiru doole bu xel dalul jàng du fa mën a am boobu benn la ci ñaareel ba nag mooy xale bu jàmbaaree nañ ko fësal wan ko ne ko kii jàmbaar la loolu lu am solo la waaw góor dafa baax ci nit dafa baax ci nit xale buy jàmbaare te doo ko tagg mukk doo ko neexal doo ko euh, soññ doo ko jox yeneen kii waaye daanaka dangay mel ne ku ko gisul loolu baaxul xale boo xamante ni dafa yaafus doo ko saafaraa xas xas baaxul ndax dafay gën a gën a ñàkkloo yaakaar ci jëmmam day tax duutu amati kóolte ci boppam day ñàkk confiance ci boppam waaye ni nga koy saafara mooy da ngay da ngay tagg kuy def safaanam ci pegg waaw bu dee koo xam ne du wax dëgg bul dëkkali ci noppam ni ko yow yow fenkat nga doo wax dëgg déedéet loolu baaxul ndax bu yàggee affaire bi dafay gën a sax ci moom dafay ñàkk yaakaar na ah man kay kon léegi man say boo man mënatumaa wax dëgg déedéet dangay ngay tagg waxkatu dëgg yi ci ci ci seeni jotaay di leen neexal di leen nàngam su ko defee day xemeem loola lee bu ko daa def dafay daal di commencé di ko bàyyi ndaan dafa mel ne daal daal mën nañoo wax ni ci daaneel ilmu nafs mënut a ñàkk ci liggéey bi lu xam ko nit ki bala ngaa jëflante ak moom lu bon bon am na yoo war a xam ci moom ndax ci biiri nit lañuy ñuy nekk nit nag laa wax waxuma gone waxuma mag waaye nit xam ko da ciy baax rawatina ci wàllu jàngale ndax liggéey bi ci xel mi la waaye du ci bant du ci nàngam ca xel buñ ci juumee la muy indi ci eh, ca personnalité xale bi bu doonee mag ban xeetu personnalité lay nekk ñu ngi koy mooñee ci bi mu nekkee gone am na ay mag ñoo xam dañoo yàccaaral gaaw a tiit gaaw a ragal gaaw a nàngam amul confiance ci seen bopp loolu ci seenu ngone la leen di toppe am na ñoo xamante ni dañu doon mag am confiance wóolu rafet njortu di jéem a jël ay initiative di góor góorgóorlu ñooñu ci seen ndaw lañ ko mooñee kon xeetu personnalité nit ki ni muy doon bu doonee mag ci ci ngoneem lañ koy mooñee loolu nag kon am nañ responsabilité bu mag a mag kon sunguf si mi ngi fi waaye nañ fexe ba buñ mooñee cere ji doom bi ñu mën a xam ndax doom bu dijj lañ bëgg wala doom bu sew lañ bëgg loolu nag yaakaar naa suñu soxna yi ñoo koy gën a xam kon maa ngi wàccee di wax ni rek liggéey bu nekk bu ci yërmande ak ñeewantu àndee da koy taaral waaye bu ca ñàkk yërmande ak keñaan raxee day yàq taar ba donte am nga résultat nag man nga am résultat mais taar ba dafay xam ne ay xale la ñuy jëflanteel ci xale xalaat yi ni mu gaaw ni ko yàlla bindee bokkut ak mag su ko defee muuñ am ñeewantu ci jéem a tàggatu nag jéem a xam gone loolu daal bu ko defee yaakaar naa jafe-jafe man naa wàññeeku lu fi jóg de ndax jafe-jafe mooy dundal dund bi waaye nag mën naa wàññeeku. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa eh, waxtaan bi am na solo lool eh, ñëpp jëriñu nañu boo bàyyee xel ni ñu dégloo ak ni ñu taaxeerloo da ngay xam ne. Ah, amal nañu solo ndax jàngalekat yi man dama seetlu ci jamono dañoo xiif li ñuy tuddee ilmu nafs dañ ko xiif boo koy waxtaanee dañ lay diglu lool kon euh, thème bi am na solo lool macha allah tey tam trai traité nga ko ci traitement bu bu bu am sol warga la xam naa itam ne li nga waajaloon jeexul waaye euh, ma al waqt <laughs> dañuy xaw a am lu ñuy jéggale rek ngir xëy na euh, dàqonte li ci des ndax dañoo tardé une heure de temps ci fi ñu waroon a tàmbalee looloo tax il faut que ñu fay ko après euh, moo tax damay ragal ni taaliqaat ak asila yi soal yi dañ koy def fii ba ba nuy julli ba deux heures ba defee Cheikh Mouhamed inspecteur Ngom xam naa danañ la xaw a téye tuuti bu jullee ba noppi rek insha allahu directement dañuy tàmbali waat bu ñu tàmbali ba inspecteur jeexal ñu ñaanalante door a def yëfi njóobeen insha allah xam naa eh, dañuy ci asila yi ak taxliqaat yi ko am soxaar rek dama ñëw sama ma xale yi xale yi loolu jàmm naa li may toog xale yi nekk ci kaw ñu bëree di def moom bi mu demee mu ne moom giseewul lii daal ndax na moom ni gisee du noonu xale yi waruñoo nekk ma toog waruñoo di waruñoo nekk di wax man tax yenn wax yi man gis-gis boobu la am euh, loolu it may laaj wax ndax noonu la war a demee ñetteel bi mooy nga foofu lay tënkee mooy xale yi nga xam ne si day wax dëgg maanaam tey jii boo ñëwee ne ndax man yàlla dimbali na ma xale yi ku ne ku def dara danaan man wane toj kaas bi mën la man ndax kooku dañ ko war a dañ ko war a dóor wala déet wala ndax dañ war a orienté taw jéem ko euh, bi may mujjee mooy dafa koo xam te moom moo ma nettali sëñ daara bi moo ma nettali nee na euh, xale bi dafa dafa da muraaxib bi daañu daan ne kan moo soow buntu duus xale bi daan ne ko man xale bu góor buy doog ñëw ci daara bi daan koy duma xale bi toog ak benn daan ne ko daal di bàyyi naa koy wax dëgg ndax soo waxee dëgg dañ lay duma mu ngi nee na moom moo ko déggal boppam loolu it na ñu mën a jëlee wasalaamaaleykum. waaw kay jërëjëf am rafetlu bu baax a baax seen kàddu yi. daanaka ah, xam naa sëñ euh, waaw incha allah ñoo ngi rafetlu bu baax a baax euh, kàddu yi daf mel ni yëpp ay ay laaj la euh, ay commentaire bëriwu ci lool lool. waaye li ci am solo mën na ma ko tàmbalee ci bu mujj bi rek ñàkk formation bi ndax du warteefu état wu mel noonu état xam nga moom wax na ne. wax na ni njàngum doomu réew mi yëpp ci aw loosam la la la gàllu loolu moom ci suñ charte nday réew mi sax dañ ko ca bind maanaam jàngal xale yi warteefu état la keneen ku koy def danga caa gàttatu état su ne yéen lii ngeen di def mbiru nguur gi la moo ko war moo war a jàngal doomu réew mi kenn ku ne la mu bëgg a jàng mu jàng léegi nag dañ ko ciy gàttandu dafa mayee ni mënees na ko cee gàttandu ci kaw ñu sàmmoonteeg tërëliinu euh, réew moo tax ñi bëgg ubbi école ubbi école ñi bëgg ubbi daara ubbi daara ñi bëgg ubbi leneen ubbi leneen waaye nag ñëpp dañoo war a euh, tënku ci li ñu li ñu euh, kii ñëpp euh, état moom <clears throat> bala laa mën a tàggat si da lay jël wala mu xam la xam nga yow boo jékkee-jékkee rek fàkk sa barab daal di samp sam néeg daal di dajale say dongay kon bi daal di ñëw di jàng te yëgaloo ko état demoo ci moom defoo ci nangam li fekk jàng jàmm a ngi xew day mel ne ku la yëgul waaye looy wax ba ba jëyee am fa ci nga xam ni jaaroon yoon moo ko gën ndax la jëkk la la jiitu ci la ñuy xool mooy ndax kii am na ndigalul ubbi jiitu la ñuy xool mu ngi mel ne dawalkatu oto bu accidenté la jiitu ci li ñuy xool ana ana papier oto bi mooy euh, carte grise ba wala ana sa permis d'abord ana assurance yooyu détail yooyu la ñuy xool ba nag bu fekkee ne oto bi amul kayit amoo permis moom moom du mën a xewati yow moom dangay fare bool daara ji tamit li fekk jàmma ngi xew day mel ne gisuñu la xamuñ la waaye bis bu dara xewee la jiitu ci lañ lay laaj mooy kii fu mu jëlee ndigal bi ndax am na ko wala amu moo tax yooyu di ko di ko wut baax na ci te loolu tër am na tërëlin yoo xam ne di kii mooy mooy ne ci gàttal daal état xam na ni moom moom la war te nangu na ko te waaj na ngir def ko it nag waaye nag mun munut kenn ku nekk mu fekk la fa nga kii yéen ñi ñëpp kenn ku ñu ci bari bokk ba ñuy ubbi dañoo jékki-jékki rek ubbi daanak sakku wuñ ci ndigalul kenn xanaa xëy na bu fekkee ne am nga sëriñ wala yu mel ne nga dem ci moom ne ko damaa xalaatoon na ubbi daara nangam nga ñaanal ma ci. waaye hmm. waaye yi ci des yëpp loolu kii kon waaye lii ngeen def moom baax na mooy ka leen war a tàggat bu leen tàggatut ngir ay sababi yéen ngeen jéem a tàggat seen bopp gàttandu ko ci. beneen bi ci des mooy wàllu nafsi toftalewu ma ko comme ni mu ñëwee waaye damay kii noonu rek. Euh, naka lañ koy mën a jànge comme xam-xam bu la yitteel bu nekk am na ay yoonu jàng leen am na ñu ko mën ci dëkk bi am ñu ko ñu ci sawar a jàng am na ñu am jot waaye tamit internet bi tamit mi ngi fi ay téere yi mi ngi fi sosu gi ci falsafa waaw falsafa li ñu wax falsafa moo nekkoon ndey xam-xam yi bu njëkk euh, daanaka moo fi moo fi nekkoon xam-xamu diine yi sax fesutoon ci biir kii bi donte doon nañ traité ay mbiru diine lu ne nag lañ ci daa wax daanaka waaye nag ci jamono euh, dafa dem ba mu yàgg xam-xam bi beru euh, nekk xam-xamu boppam am ay temu boppam tomb yoo xam ne foo ko gisee xamal ni ci ilmu nafs la lu mel ne ki xalaat lu mel ne ki fàtte lu mel ne ki fàttaliku lu mel ne ki wuute am ci biir nit ñi ak yu mel noonu yooyu yëpp foo gis ñu koy traité xamal ne ñu ngi ci cadre ilmu nafs loolu nag xam-xam bu beru moo koy am ni nga gisee ni foo gisee ñuy wax ci fiq ak laab ak julleeg aj màkk ak ayu mel noonu xam ne yaa ngi ca fiq fu ñuy wax ay gëm yàlla melokaani yàlla ak ay nangam yaa ngi ca tawhid noonu la noonu la mel su ko defee kon mënees nañoo boo xamee ay nit ñu ko kii mën nga ko jàng ci biir internet bi tamit mën nga ko ciy jàngale ndax am na ay site yoo xam ne léegi site site éducatif la yoo xam ne ay jàngale rek la su ko defee yooyu mën na bari bari na ci xale boo xamante ni euh, day mokkal ndax dañ koy topp ci man-manam rek ndax dañ koy topp man-manam rek xam nga aw fas mën nay daw daw bu baax xel wi jaay la ba ngay continuer di làbbali day dem ba mu yàgg rek mu daanu xale da ngay bu bu ko topp ci xëram dangay dox doxin woo xamante ni dana mën a yàgg dana am ak mujj mais boo toppee vitesse bi dangay dem ba mu yàgg rek mu mu mu kii li la daan fum na ne loolu la mooy xale bi léegi ci bëgg-bëggam bëgg na di la ca dëgg-dëgg sax ndax damay sikk sàkk ndax mokkal la daa defal da daa takk ndax da mokkal wala ndax dadaa takk ndax yéeme na lool mokkal ba noppi fàttee ko noonu waaye léeg-léeg takk day am ca dafay nurook mokkal euh, takk boobu nag mooy waral euh, yéen sax xam ngeen ko xale buy xale buy tari tari bu takk danga koy xam waaw am na muy taree nii rek nga xam ne kii dafa takk affaire ba bokkul waaw xam dara ci daara rek da koy xam. nga xam ne dafa dafa koo takk. su ko defee yooyu nag bu fekkee dafa dëkk léeg-léeg ñoom dañuy dañ lay jàpp gandax ci wàllu man a takk bind rapidement da nga koy jox bind bi rek mu taxañ te fekk mokkalu ko su ko defee yu mel noonu nag boo ko ci dee bàyyi muy def noonu ba noppi nag ni ngay toppee nafar bi ak jàng wet yeeg yu mel noonu baaxut loolu wala mu xaw a sooxew tuuti rek mooy waral fa nga koy fa nga koy xamee dafay dafay wees waaw moo tax amuk amuk formation yi fu mu ne yuy saw sawaan yooyu yëpp Euh, xëy na boo ci jaaree da nga koy xam mais bokkut ak ñu ñu tàggat ci yu sew sewaan yoo xam ne da ngay ba ba kii moo moo ne ko doo ko topp ci xiram da koy topp ci man-manam ak li méngoo li yaramam àttan ak li xelam àttan jërul di topp ci xiram boo ko toppee ci xiram rek day day day day kii. mas naa ci seen bii nii waaw waaw bi maanaam mën naa jël lu ñetti waaye du ko jox ñetti da ko hmm. moo dëgg la ko ci li xale dëgg la mooy loolu rek fas moom boo ko dee làbbali muy daw ngay làbbali muy daw ngay gën di làbbali di xabtalu di gën di làbbali day jekk ngeen ànd daal. Euh, ndax dañuy sukkandiku ci at wala dañuy sukkandiku ci man ma xam nga borom xam-xam yi bu ñu la joxee ay takk ay tegtal waxuñ leen ne tegtal bii wala xaayida bi ci ñépp dañ koy la valable mooy li Xaadim Jaan doon wax rek xaayande buñ la tegal bu wal qalami wa ma yas